aousubillahi min alihi wa wa xadimihi wa man tabi'um bi ixsaanin ila yawmi diin jullit yi mbokku taalibe yi seen mbokkum jullit di seen mbokkum taalibe alaaj jibi sey moo dellusiwaat ci seen jataayu waajal ziyaar daaru di fas yéene nag li nga xam ne moo war sëriñ bu mat sëriñ ci ka ko topp te liñ ci jublu du lenn lu dul laabire rek diggante mbokku taalibe ak i moromam ndax ku ne xam na ne réew mi néew na ku ñàkk sëriñ koo ne ku ne koo ne kuy sa sëriñ rek mu ne la diw sàngam dafay baax nag lool yow mi nga xam ne yaa sëriñoo diw nga xam loo ko toppee moom mi nga xam ne moo la sëriñoo it lii moo ko war ci yow. loolu dafa am solo lool ci bépp ànd bu mën a doon boo ko doon misaal dafa mel ni jëndkat ak jaaykat waaw kiy jënd war naa yor njëg kiy jaayit war naa yor marchandise su ko defee nag ñu war a seetantal bu baax diggante taalibe ak sëriñ taalibe bi lan mooy njëg gi mooy joxe sa bopp ki joxe boppam dana joxe alal ki joxe boppam dana joxe leneen ndax sa bopp la gënal lu ñu wara sétantal nak gannaaw bu nit ki joxé bopam joxé alalam joxé lu baree bari lan la sëriñ bi wara tek ci loxom loolu moy mbir mi di bo joxé sa bop war nga xamné sa bop bi wara ko jox luddul ngir yalla aslamtu nafsi lillahi lañ wax moy da ngay joxé sa bakkan ngir yalla kon ka ngay jox sa bop war na la mëna jox yalla wala sëriñ musa Ka bi mu di manam dex ku dem duy ku soobu né mes bu génné xam borom waye dem na ba ci wir wi ne ku sàggan sanku faw te lap te do duy do set do setal do xam boromam lolou moy talibé bi déssé yor njëg njëg gi su matul do yob marchandisme da ngay joxe njëg lu dog gana bo joxe njëg lu dog nak ñu tek sa loxo marchandisme bi marchandisme bi moy yalla ga mëna wétal sa borom moo damay faral di wax ne ñatt ngi yo xamne sëriñ rek te mënu ko tek sa loxo ya bo xamne amu go sëriñ maarifatu billahi tawhidul ilahiyya ak sirru la ilaha illallah te lo ci yër rek fekk ci mbindam sëñ Tuubaa ba demé ci masali ci fasul fi zikri bim wa in takun mubtadiyan fa nafyu aw la ma ta'zim ya qayu bika bi la ilaha illallah wal muntaha muxtasir bi allah bay tambal da ngay dàq di saxal di dox sa diggante ak sa borom ngay dàq sànni ci àll ba saxal yalla bi rek biti bo demé ba yegg nak allah ngay wax ben gi la ilaha illallah bo yeggee allah lu ci teg wa kashfu lay asraaruhu laysa yaliqu naa li kaw na siri baaxan am yàq waaw wuññi mbootum laa ilaha illallah nee na yayul ci téere bi laysa yaliqu naa li kaw na siri baaxan am yàq ndax mbóot moomu leen dafa mel ni géej rek tam nekk ca xóot xóot ga lu ci teg fa man yurid kashfa lazi tadamana yutaliqu dunya talaqan bayina kasa mbóot mi nag bu fekkee yitteel na la mbóot mi bu fekkee ñor na la na nga fase àdduna fase gu moo tax àdduna kum nekk sa mbootul laa ilaaha illallah bi ci yow te boo toppee sëñ bi bokk na ci lim war a def ci yow mooy suru laa ilaaha illallah mbóot moomu leen nga wéetal yàlla bañ ko bokkaale dara wax na ci biir téere ba ne tawhiidu taaruf ci menjantu baatul laa ilaaha laa lay jóge waaye sëriñ bi mat sëriñ nag moo la koy xamal moo tax mooy la lil aarifiina xaalahu man alima ñeel na ñi xam seen borom moo tax sëriñ bi la bëgg dundaloo tawhiid googu leen faaw mu xamal la yàlla te ci suru laa ilaaha illallah lay jaare wata mu la tunalu bi taslimi wal mujahada labil bil munakarati wal mubahada Yang koy amé ci jébbalu moo ku jébbalu lol lañ la wara xamal ku jébbalu fofu lañ la wara yegalé ndax joxe nga sa bop ku joxe sa bop nak wara tegg yalla waaye yalla na fekk ka nga jox sa bop yor yalla xam yalla bu wér yegg ci yalla bu ndax nit ku yor mu nu ko joxe su ko defé nak day bax ci yow mi joxe sa bop yow mi nga xamné ya bëgg a nga xamné ki ngay jox sa bop li ya ko war su ko defé na yow wacc nga su ko deful it boo yeboo jëlaat sa bop nak seti ko xamne tanana na la ci yalla nga jox ko sa bop mu def ci yow la nga xamne moko war sa ak mom ndax jaamu kat waccul ken wa nim waré sëriñ non la waré taalibe té itam bu ken yaakaar ne day jaamul talibé xel nangou ko di Cheikh Moussa amna talibé bu ma sa xewla dara bim ko ko waxe Cheikh Moussa da ta lamb ci posam jox ko nako aduna la fi mënal wa yawmal qiyam mo fa ben talibé yakar te it sama jaamu yàlla bu ko benn taalibe yaakaar ndax su ma ko yàlla fay am naa ci soxla que ça lan laa seq ak yéen xamal leen yàlla xamal leen nuñ koy jaamu boo liggéey yàlla bokk ñu fay lii dafa leer di moo tax mu ne benn taalib di ko poñe yow man xiyaam te wax na dëgg dala faa diggu dara. te tey nag mel na ni boo seetloo ni mbir yi doxee daa mel ni sëriñ si dañoo yaakaaree taalibe yi àddina taalibe yi it yaakaaree sëriñ si àllaaxira te ku ci mën a morom ma dara àddina ak àllaaxira ñaari kër la yoo xam ne kilifa gi yàlla moo ciy jariñ ku ko soob du ci lor ku ko soob kon kay tee ngaa yaakaar yàlla ci sëñ bi sëñ bi bañ a yaakaar ci taalibe yi àddina te yaakaar boromam rek te nag bu matee sëriñ du jël ay mbiram joxal jëmee ci kenn kudul boromam waaye bu sëriñ sàgganee bay yaakaar ne taalibe yi ñoo war a defar àddinaam loolu doy na waar taalibe yi itam sàggan ba yaakaar ne sëriñ si ñoo war a defar seen àllaaxira doy na waar te moo ne ñoo ko war a defar di ci naka nag mais xamal leen yàlla bu wér yeggal leen ci yàlla bu wér ba duñ bokkaale yàlla ak dara sax ci jaamu lii ku la ko defal wàccoon ak yow ëllëg di wax dëgg yàlla ki la defal lii wàccoon ak yow ëllëg moo tax yu bëree bëri yi yaakaar rek sore nag la am ku yaakaar ne sëriñ li ko war mooy boo faatoo mu jullee la bu la njëkkee faatu nag te léeg-léeg sëriñ njëkk a faatu taalibe di kon kay yaakaar jooju mën naa yàqu wéru boo amee doom moo ko war a tudd booy takk soxna moo ko war a takk dëgg la baax na naa mën na koo def waaye taxul ngeen ànd nag am na ilimaan joxe mi ngi ci koñ bi te looloo ko tax a jóg sëriñ bi li ngeen àndee daal mooy da bëgg àgg ci yàlla te mën laa àggale nga bëgg a yàlla mu bëgg mu mën la koo xamal bëgg sirru laa ilaha illallah te mën koo def ci yow moo tax ma ne ñett yooyu leen bi ci jiitu mooy sirru laa ilaha illallah lu am la lu fi nekk la te sëriñ moo ko war a xamle ba ca des mooy tawhid bi nga xam ne kenn du ko jàng wéetal yàlla bañ ko bokkaleek dara gu tege ci xam yàlla gu wér lii topp sëriñ bu mat sëriñ mooy tax nga laal wala bo demé ci mbindam seigne mbey Jaxate fumi na waxé na rawna am amna boroomam raw nay ka dess du bamba ku bëgg yalla ak top yalla ak xol bu sel mu na fekki bamba parce que bañuy topi bamba diko di fekki bëgg yalla ak top yalla ak ag ci yalla tax ñu top ko seigne bi mën ko tek suñu loxo Cheikh Moussa yi la dekkal top ñu ngir santi wala askan wi waye xam yalla ak geng ci yalla gi nga xam mën nako ko te def ko yit nak lolé képp lañ ko topé motax kuko wuy si mu def ko ci yow ba nga mooy la boo demee bu dee dëgg jàppal nee na bu dul dëgg sànnil te boo gisee kuy ñëw sax boo yóbboo dëpp ko ni ko dëgg newu fa loolu nag gisaguñ ko moom. yàlla defal na ko tawféex ba nga xam ne képp ku toog ci ronam yàlla la la woon képp ku toog ci ronam yàlla la la tegtal wonewul boppam ci dara parce que lu tax ki nga xam ne dafa yittewoo won jaam ñi seen borom du am jotug wane boppam parce que wane yàlla wane sa bopp mënta nekk. wane yàlla wane sa bopp mënta nekk li ngay def kay mooy won jaam ñi seen borom te lii mooy cëru kilifa gi mat kilifa boo demee ci xit atun taqton benn murid wal marid sëñ Tuubaa daf ci wax bayit bu am solo te mooy waman ala xeyri illaahi dallaka fa fira minhu innahu adallaka képp ku la tegtal keneen ku dul yàlla na nga ko daw ndax daf lay sànq waaw ku la tegtal keneen ku dul yàlla sëñ Tuubaa nee na daw ko ndax daf lay sànq wa man alal illaahi dallaka fa in xaalaftuhu fa lil maridi tatmain ki la tegtal yàlla nag boo wuuteeg moom nee ci seytane kep nga jëm kasa kiñ tektal yàlla nak wax deug yàlla bu wax jotee yàlla lay wax bu jëf jotee du jëfënte kudul boromam te yit niko yàlla gëreme kep moko soxal moy fën ci kàddoom fën ci jëfam fën ci léppam motax tax yàlla bo xasse ba am leneen loy def du ci wut leneen dudul dul yàlla du am te nak depp nak alquran lol ndax suñu borom wax na ci alquran ne wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun wa ridwanun nee na àllaaxira daal te moy mujj ga njëggal fa nek ak mbugal ak ngërëm ku ne nag mën naa natt boppam am na koo xam ne ci maxfira lay daw njëggal mooy kan ki tooñ mbugal nag ki nga xam ne ak kasa moo tooñ te nuur ca rek te yàlla jéggalu ko kooku la ñuy buggal di ki am ngërëm nag mooy ki nga xam ne dafa fàtte boppam fàtte léppam jël boppam jébbal yàlla ba soxlaatu ca dara ni ko yàlla gërëmee rek bu dee wax ni ko yàlla gërëmee bu dee jëf ni ko yàlla gërëme te xol bu defaru nii képp la war a mën a mel ndax dafa an taabudallah ka annaka taraw fi nam takun taraw fi noo yaraaka da jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis boo ko mënta gis mu ngi lay gis kon ñu bëggoon ceew mooy nga gis yàlla ci lépp jëf ji lu mu baax baax baax lu ko nit ñi rafet lu rafetlu doo ci gis sa bopp mukk lii nag ku jaarul ci loxoy mag ngir nga mën koo dundee du yomb parce que gàkk-gàkk yi wër sa xol ñoo tax gàkk-gàkk yi koy wër lu mel ni rëy lu mel ni kañaan lu mel ni gisal lu mel ni soxor réere yàlla xool ba mu nekk rek borom ngir mu jëf yàlla gërëm du yomb waaw ngir mu jëf li yàlla gërëm moom mënta nekk parce que lu tax ay yëpp lay doon yoo xam ne lu mu jëf ñoo ko yàq su ko defee nag sëriñ bi mat sëriñ nag topp bi nga koy topp ak jox bi nga koy jox sa bopp moo lay teg ci yoon wi nga xam ne moo lay tàggaleeg yooya waaw moo lay tàggaleeg yooya ba nga xam ne da ngay nekk ku set wicc weex tàll te mi ngi ci xoqa jox na ko ci xoqal bu kaaw yam xal bi rey na ni كسا يمخو عن القلب رينا قد جد نسو مغوى المخسل أنسى بنجاسات أولئك القوم لا يسقى جلسهم إذ يكسبون مريدنا سعادات سرين دال سمتي سرين yére bu tilim niñ koy fóote ba tilim ja jeex tàkk noonu lay raxasee xolu taalibeem ci bépp gàkk-gàkk bu mën a doon waaye nag ku yaakaar ne moom sëriñ bi day toog fële nekk ca jaamu yàllaam yow nag fu la neex jaar nu la neex doxale boo ëllëgee nag jaam ñëpp teew sëñ bi ñoo taxaw ci péncam yàlla ne kii sama donga la bàyyil mu jàll loolu moom wax dëgg yàlla dëppawul ak li am ko jàngee sëñ Tuubaa nee na tallaahi lay sa yan fan sax su xaddaa inda xulul ram si xayrul xuddaa nee na ku ñu yor ci bàmmeelam dara du ko fa jëriñ dul njub njub loo deewaale woon doo ko dekkiwaale kañ nga koy deewaale mooy topp ki mat a topp mu def ci yow loola ba nga yëg ko boo ko yégée ne di ko dund yomal xiyaab doyoo fa sëriñ bi dara damay faral di misaal loolu toujours ne taalibe mat taalibe soxlawul professeur am bi su examen waaw élève bi nga xam ne mat na élève lu muy doyee professeur am bi su examen dara la ko fa doyewu parce que jang na li wara jang réviser lim wara réviser té lér na ko né liñ koy laaj du génn lim jang di kon kay bo jangé mokal bo né buñ la laaj nga tari waye bo dara wala professeur ba xamul dara ah ndax dana soti mom programme bim lay jangal sax duñ ko laaj ci examen ba amul solo di moy serigne bi la won bop wala won askanam rek que ça Cheikh Moussa lum ca askan wa bok ko topé du dem sen kër bu dé sant wé tax nga top ko dem sen kër bu dee tiflit bi te mooy ñaan wi nee na demal ci yaay ak baay demal sa ndey ak sa baay fi ñu jaar yow ku dul ñoom du fa jaar ak yow. wattandiku leen jëriñoo sëriñ bu sëriñ bu la dékkal nga dékk mu la nga la wéy bàyyi la ci kër gi xëy na am nga loole te xëy na amula loole boobu la sëriñ de yéen a ko sëriñ waaye du sëriñ de ku la poobar xar rek mbaa ma ëpp la xar rek dana nax sëriñ da nga koy jox mu jox la sëriñ da def mu def su fekkee man da def askan wi rek nga ko toppee askan wi doo ci jot seen kër su fekkee sant bi da nga ko toppee sant bi doo ci jot du dem seen kër su fekkee taalif rek nga ko toppee dama cee yaay bàyyi ñu taalif la seen taalif bi gën a wóor ci yow kon mbir maa ngoog ubbi leen xel yi nga xam sëriñ bi xel rek la am. ñoom it am nga xat kenn ku ne yàlla jox na ko njëfandu bu mën a lëggéeyee jëmmam ba mu xewee lëggéeyee leen xel yi yàlla joxu kenn xel lu muy liggéey lëggéeyee leen xel yi li mën a am am li mënta am ñàkk li laa ci xam kon demal sa yaay ak sa baay defal leen ba seen xol seet ñu ñaanal la kon ñaan doxul seen diggante du sant bi du askan wi waaye yàlla kase la war a doon li am solo nag mooy peeseel waa ji ba xam yàlla nga fa su fa nekkee ne nga ne ko maa ngi nii mu def ko sa bopp ba nga yëg ko ngay sant yàlla bu wér di ko sant ndax man laa yaskuru naas laa yaskuru laa ku dul sant nit doo sant yàlla parce que li ngay yëg ci yàlla war koo xam ci yàlla ci nit lay jaare nit ka muy jaare ne ko jaajëf dafa war loolu la ñuy waajal di siyaar bi lu ko tax a jóg jaajëfal Cheikh Moussa ci lim ñu defal waaye xàmmee nañ yàlla xàmmee Cheikh Moussa bu wér ba duñ ko jaawale nim sante sëñ tubaa gërëm sëñ tubaa waaye taxul mu jaawale sëñ tubaa ak yàlla loolu moo ñu war a dal suñu diggante ak Cheikh Moussa dañ koy sant bu wér gërëm ko bu wér ci yàlla mim ñu xamal yàlla mim ñu won yàlla mim ñu yëgloo nëbb boppam nag waaye ku wone yàlla yàlla wone la moo tax tur wi ku muy déranger yàlla yàlla ak njàmbe daaro moom boo yeboo tuxu te foo tuxu yi dana la fa fekk parce que borom moo ko waxoon lii ma yàlla yoor di jàppale xayrul xaalamiin ca mag teg ko ci loxo Xaadimu Rasuul mi nga xam ne wax na mooy jëwrinam mu Rasuul yor ma ko fii ci ma yëkkati ko ca kaw ne ku bëgg ñëwal jël dama ci dellu gannaaw dama ci taxawlu kanam kanam la jëm rek kum neex kanam la jëm kum naqari kanam la jëm parce que lu tax dafa yoon njëriñal jaam ñi te waxaloon na ko boppam ku yàlla bind maa ngi yor sa njëriñ boo ko jël see mi ngi fi boo ko jël sul mi ngi fi sëñ Tuubaa ba muy wootee yi loolu la waxoon waaw wallaahu yansuru nii wal xalqu tatba'u nii fil barri wal bahri za nafin bila darari yàlla dana ma dimbali kasa yansuru nii wal xalqu tatba'u nii mbindee fii danañ ma topp kenn mënu ca dara za nafin bila dararin may borom njar njariñ loo xam ne aw ma benn lor ku mel nii nag ñun ñu wuy si la di que ça waaye ñun wuy ji wuñ Cheikh Moussa ngir sant wek askan wi leer gi mu yore ak mbot mi mu yore xam-xam bi mu yore bu yagul ben way ak makay wax dama Cheikh Moussa yeen lutax du ngeen waxtane wajurum bu goor que ça ma ne na fañ koy waxtane nga fekkul rek waye topu ñuko ngir wajurum bu goor touba la dedet ci bir mbolo yalla yalla yi ci ño xane seen mam seigne touba di que kon bu don lool rek la koy top parce que limam am nga ko waye leer gi mu nak xam-xam bi mu nak gannaaw bu baayam doonee seexu sëñ tubaa gannaaw moom bu jëflanteeg sëñ tubaa dafa wëlbatiku ne àgg naa ci yàlla ba mën caa àggale jaam ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp ma def ci yow yàlla ba nga yëg ko ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp dinaa la yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko lii mu def lii mu wax fii mu jaar moo tax gaay yi wuyu si ko ku defoon noonu nag waxoon noonu gis ñi gis ku yàlla ñor wuyu si la di loolu képp la. kon lii lañ ne woon nañ ko barkeloo rek ci li nga xam ne moo war sëriñ ci taalibe te mooy yóbbu ko ci yàlla yëgloo ko yàlla won ko boromam xam ne ku waaye wane ku dul yàlla wane yàlla ko gën te Cheikh Moussa lii képp la def wane yàlla bu wér ci jëmm ji ci melo wi ci tur wi ci def ji ba nga xam ne taalibe Cheikh saa bu wér xamul ku dul yàlla yëgul ku dul yàlla gisul ku dul yàlla parce que leer gi ciy dënn ma tax kon ñu ngi tënk fii kàddu gi di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.